Dakar leen gërëm yéen ñi nga xam ni seen liggéey ah, ah, liggéey seen liggéey Sénégal yi bëgg nañ ko di gërëm biisu baaba xam ne moo ñu booleex yow suñu am ñu am dëj am su ñetti xale yoo xam ni ñoo gaañu muy dëju muy dëju muy dëju àddina di dëju Sénégal suñu mbokk mool yi ñoo xam ne su ñetti raq yoo xam ne dañu gaañu ah, tey jii barki démb keroog paasu lay génn semaine bii tey jii Ameth Dieye génn amee Dieye nit ñi dem napp gis koo tey jii ñu jum beneen dëj juddu si. waaw parce que ñun ay doomu mool la ñoo ñoo woon booy bi nit ñi léegi dañ tëmba léegi jóge si géej ñoo seetu woon booy bi dañ dem napp napp jékki-jékki dal dal si kii bi euh, seen xale yi xale bi timbi muy Ameth Dieye dañ dem napp di napp seen ko ñu jël ko yab ko teeral ko. waaw moom tey yow lan nga ci moom waaw am Dieng man ak papa ji ñu am ànd mu ne ko élément Cheikh Tidiane Ba mu ne ko élément boo xam ni élément euh, euh, Cheikh Tidiane Ba borom question dépôt nga xam ne ñetti xale yëpp ay ay élément am lañu ñetti xale yëpp ay élément am lañu Ama Dieng élément am la Passoulay élément grand élément am ñu nekkal ko ñu nekkal ko Soumbédioune naa moom mu def def rafet. mu def def rafet ñëw si jour dëj bi jour saraf bi ñëw na fa. mool mool am na benn affaire boo xam ne tàngaay yaram boo xam ni dëgg nga wax am na tàngaay yaram boo xam ne day day géej day gannax dooy dem géej da ngay jël gilet teg ko sa boor parce que géej da la mën a bett chaque heure waaye mool am na tàngaay yaram boo xam saa da ngay dem naan non gilet bi na nga ko bàyyi nii jule bi na nga ko bàyyi nii loolu rek mooy erreur ñun suñu mbokk mool yi kese mooy erreur bi su mujjum naa am nañ dëj boo xam ne dëj bu rëy dëj bu rëy boo xam ni vraiment. Euh, ñu si sant ñëpp di si di koy mettitlu tey ji beneen dëj jublu na euh, sumbu waaye ñu ñu sant ñun suñu DG koo xam ne mooy Cheikh Tidiane Ba xam ni vraiment bañ ko woowee si dëj bi ñëw na ñëw na def pastoral xam ne Médina la dëkk ba mu ko woowee dama ne maawo man vraiment du dëj bi waaye man ma juddoo Médina mu ñëw def si loo xam ni amul autorité bu ko fa def man damay bëgg sànni beneen message boo xam ni mooy Pape Saliou bi ma toogal nii muy mbay seen ñu ñoom ñu xam ni yàlla def na yàlla jiite moo ñu nekk ñu jiite xale yi nekk géej xale yi nekk géej ñu jiite leen yàlla def ñu am dëj bi ñu ngi koy masu ñëpp suñu mbokku lébu yëpp xale yi si ñun la ñu bokkoon xale yi samay élément la ñu xale yoo xam ni si la ñu bokkoon ñu maa lay bàyyi Pape Saliou mu wax la si galaa si galaa boo xam ne encore la ñuy wàcc nii. je pense que ni ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal yëpp ko bokk rawatina suñu mbokk mool yi. ak euh, waa Médina ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal secteur bi ay xale lañ nag ay tout tànk lañ parce que million mool xamuñu dara lu dul daan doole rek lañu xam saa ñu xëyee ñu ngi suñu waar mais nag dafa am loo xam ne dafa xew ba xew muy précaution yi ngay wax ci wàllu gilet bi dafa am solo te ñun mool dañ ko war a favoriser mun di ko sol saa su ne parce que genre accident yi bés bu ñu arrivé rek yàlla dinañu muccal même suñu euh, suñu bakkan su yamee foofu sax maanaam suñu mbokk dinañ gis suñu koor te lii daf ñu metti trop suñuy rakk suñuy doom dem nii ci géej gi ñi ñàkk leen gisuñu leen tey ji tey loolu daf ñu metti ñu koy metti lu boobu ba léegi yàlla def na gis nañu ñaar ñi mu des kenn kooku ay waa ay njabootam ay waa këram ñu ngi koy jooy ba léegi mu metti ñu carrément ñun waa Soumbédioune di ko metti lu bu baax di ko jaale seeni mbokk xam ni ko xale yooyu tey dañu yàgg ànd ak ñun ci li ñuy yëngu muy ñun dañu doon ay dirigeant di président bi kii di Mao man mooy secrétaire général ak euh, mbay Sène ak suñu bureau bi nga xam ne moom la ñu yor ànd ak xale yi di liggéey ñooñu dañu yàgg ànd ak ñun di ñu jàppale ci mouvement bi ñuy yëngu ànd ak Cheikh Ba tamit kontaan nañ ci DG bu baax ci jaale bi mu ñëw jaale suma Soumbédioune parce que moom nee nañu affaire bi doo affaire politique moom Médina la dëgg la dëkk te Médina boobu mu dëkk saa su ne lu fa am ci tolof tolof da koy teewee di ñuy jàppale ci bépp boor ñu ngi koy gërëm bu baax di wax ni ko nag benn affaire rek lañ doon lancé xam nañ ni bokkul ci affaire bi mais il faut ñu rax ko parce que dañuy waajal gala bu mag ci Medina soirée gala bu mag ak Wally Seck suñu DG di Cheikh Ahmed Tidiane Ba di woowaa Medina yëpp ci mobilisation ñu génn génn taxaw xam ni ko mbir mi Cheikh Bala moo nekk Medina nañ ko wax te dee kii nag dafa am ni Medina yàlla suturaal na ko su ko neexoon tey mu nekk ci li mu nekk du waa Medina mais dafa doon doomu Medina nekk Medina yërëm waa Medina xam li waa Medina di dund mu bëgg leen génne ci situation yi kon waa Medina ñoo war a gore ñëw taxaw wane seen bopp xam ni euh, Médina tey Cheikh Ba moo fi nekk keneen nekku fi waa sama dernier moom rek di wax ni ko maanaam di jaalewaat rek mbokk suñu rakk yi jóge fi xam di leen jaalewaat bu baax di wax ni ko yàlla suñu borom xare leen àjjana te eh, teeru leen ci àjjana yu daw si quoi loolu daal lañ doon wax ci dernier mot bi di leen sant bu baax yéen ñu fi teew waa Feeling Dakar di leen gërëm bu baax gis nañ seen wàll ci internet bi bon di gërëmaat bu baax daal jërëjëf Dakar, notre plateforme d'information.